ayca Chérif ñu dem. waa ñu dem tàmbale kooku yéen kaay bii di l' observateur sëñ Pape Samba bu dee yemb na waa nga gis ko noonu Ousmane Sonko ak tamit ni nga xam xamante rek moom lay jëfee rawatina nag ci wàllu kàddu ak message yi yenn saa yi mu daal di euh, tiire woon ci ñenn ci opposants yi wala ci wàllu système dellusiwaat ci nag mu tuddee ko kon acte contre nature jëm rek kon ci loolu ak tamit lan moo tax kon ñu daal di reporté tukki ba mu doon amal fële ca Touba ci xalif général des kaay bi daal di ñëwaat ci mbiram bombardier entretien bi mu amal ginnaaw amee jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram doon nag amal euh, benn combat ci tuddee ko wàllu MMA ñu wax ci beneen yéenekaay enquête la moom it ñëw rek ci taxawaayu kilifa diine fii ci Sénégal muy ab statut boo xam daal lu war la bu sukkandikoo kon ci yéenekaay bi nga gis ko diggante président Macky Sall ak sañ sëñ taxa Mbacké euh, jëm rek ci loolu euh, xëy na gi Mari Sagna ak ñi mu àndal tey mën nañoo am kon liberté provisoire jëm rek kon ci déglu bi ko doyen des juges di war déglu ñu dem euh, ci euh, yéenekaay bi di le quotidien ak euh, mbiram Ousmane Sonko benn Bokk Yaakaar dafa mel ni daal commencé nañ rek di yëkkati kàddu Macky Sall ak ñi mu àndal daal ñii système démocratique bi ñu ko bëgg a nax saayal dafa mel ni kon loolu lañ daal di ñàkk ànd. journal bii di la Soleil moom gis nga ko noonu góor gi Amadou Mahtar Mbow la daal di def ci xëtam bu njëkk moom nag gis nga ko noonu muy sàkku ci ndaw yi rek ñu am fierte euh, nekk rek seen réew ak Afrique tamit ginnaaw bi ñu doon célébré téeméeri at yi nga xamante ni kon moom euh, am na ko moom euh, Alaaji Mahtar mbaw ñu wax ci journal bi di euh, source A de libération plutôt ak tamit la nga xamante ne moo xaw ci chambre de commerce ak caxat-caxatee ginni caxat-caxatee koppale mu tuddee ko pillage à huis clos muy scandale boo xamante ni kon journal bi daal dina ciy ñëwaat journal bi di euh, tribune moom ñëw rek ci benn bokk yaakaar ak euh, daanaka daal coalition fitna la gis nga ko noonu siège yu toj jaxasoo lii nag mooy imagine doon la sànq ca Pikine ba na kon journal bi di tribune daal dina ci ñëwaat rek euh, ak li nga xamante moo am am na ci ñeenti ndaw yoo xamante ni gaañu nañ ci ban yóbbu leen ci hôpital ñu ci journal bi di euh, fa moom jox kàddu gi Jean-Christophe Ruffin moom nekkoon fi ambassadeur fii ci Sénégal bu France moom nag jox na rek euh, ci jox xalaatam ci mbiram Ousmane Sonko ak Macky Sall jàpp ne daal kon bras de fer bi maanaam jàppante bi seen diggante moom du fi dakk dina wéy. Euh, Souleymane Teliko moom mooy njiite union des magistrats bu Sénégal moo nekk ci xëtu yéenekaay bi du Sud Quotidien ñëw na nekk ci mbiram indépendance justice ak wàllu yéenekaay bi léegi sax mu daal di génn livre jagleel ko kon conseil supérieur de la magistrature incha allah dinañ yaatal lu ni mel sax ak kii di daaw de min ci kanam ci jàngat li journal bi Pape Samba ñu dem ci tàggat yaram sax bu dee waaw gis nga ko Aliou Cissé moom dafa mel ni daal fanweeri euh, Lyon la yaakaar rek bi nga xamante ni mooy cinquième ak sixième journée d'Afrique moo nekk ci xëtu yéenekaay bii di record stade moom it gis nga ko les lions yi nga xamante ni ñoo nekkoon ca France ñu lànk ne si duñ ñëw mujj gi nag ko Idrissa Gana Gueye Abou Diallo ak Sarr dafa mel ni kon ginnaaw rek jafe-jafe yi mu amal combat ak waa ji di polonais bi daal dañ ko annulé ba beneen yoon astu ayca mu ngoog Chérif dooree ko ko sunu làmb mu nekkoon li gën a fës ci xëtu yéenekaay yi ñu ngi jégalu tey nag ci ñaareelu pàcc bi